projet bi nag dafa nekkoon loo xam ni dañ ko xaatimoon ci année deux mille vingt deux jamono boobu sax UCG moo fi nekkoon ñu demoon ci conférence internationale sur le climat bu tuddee COP vingt sept foofu nag la ñu signé woon accord bi accord bi nag li nga xam ni moo ko wund mooy ñoom ñu jàppale ñu ngir ñu def ay investissement fii ci Sénégal wàllu li di tuddee centre de compostage. ñu waroon seet nag fan lañ ko war a def ci ci Sénégal ñu dem amoon choix ci ñetti localité Touba Tivaouane wala Kaolack ndax foofu la ñu amee ay sites yoo xam ni ci tàggatémbe bi nii mën nañ fa def centre bi ñu def choix ci Touba ndax situation bi nga xam ni moom la Touba am ci Sénégal potentiel économique bi ak aussi démographique mais yeneen centre yi aussi bàyyiwuñu leen ginnaaw ndax lu ni mel ñu ngi koy def ci Tivaouane ci wàllu déchet électronique mooy ordinateur yi ak yooyu projet boobu tam dina commencé Kaolack aussi ñi ngi xalaat ban taxawaay lañ fa war a am ci wàllu plastique wala beneen déchet mais foofu dañu xaw a am jafe-jafe tuuti ci accessibilité centre intégré de valorisation de déchets moo tax ñu choisir Touba. projet bi nag am na solo ndax investissement bi ñoom ñoo koy jël à 100 pour cent mu nekk loo xam ne lu bees la mais bénéfice bi nga xam ni moom la projet bi di indi dañ koy séddoo ak ñun donc du ñu état du Sénégal du ci dugal 15 mais bénéfice yi dañ koy séddoo ak ñoom. mu nekk loo xam ni itam dinañu dimbali ci wàllu liggéey yu bees yu ñoo xam ni xale yi dinañ ko mën a am foofu ci Touba mais dina dimbali nguur gi aussi ci mu mën a respecter engagement internationaux yi nga xam ni daf ko jël aussi euh, ci li ñuy tuddee article 6 des accords de Paris bi nga xam ni euh, réew mi daf ci jël ay engagement pour ñu wàññi li nga xam ni moom la ñuy tuddee euh, gaz à effet de serre maanaam gaz yi nga xam ne dafay indi feebar ci euh, ak ci jur gi ak aussi ci nit ñi donc projet bi loolu lay indi mu nekk lu am solo aussi ndax ay investissement direct étranger la yu ñu comptabiliser fii ci Sénégal mais am na composante social aussi parce que 15 pour cent rentabilité projet bi dañ koy investir si communauté bi c'est donc l'occasion aussi ñu sant bu baax suñu président du conseil d'administration monsieur Talla Cissé ak administrateur yi mu àndal bi nga xamee ni siñ xaatimoon nañu convention bi balaa SONAGED di ñëw ñoom ñu ñëw dëggal ko validé waat ko ngir ñu mën def mise en œuvre bi te yaakaar nañ ni ci délai boo xam ni 6 mois wala 9 mois incha allah centre boobu dina pare te dina nekk aussi benn jéego ci li nga xam ni moom la ñu dénk mooy ñu gérer la la gestion des ñu améliorer la gestion de déchets mais surtout ñu am ay infrastructures aux normes te lii ñuy def nii tey bokk na ci. waaw collecte sélective bi am na solo. ndax bu fekkee dañu bëgg ubbi ay filières de valorisation de déchets muy déchets organique wala plastique wala leneen il faut que ñu commencer di segg mbalit mi. segg mbalit mi nag ci kër yi lay commencé moo tax am nañu aussi ay projet yoo xam ni euh, benn bu tudd sax digibac boo xam ni am nañu yaakaar fii ay semaine dinañ ko lancé dina permettre sénégalais bu nekk nga mën a jënd bac à ordure ci sa kër te du dépassé juróomi dërëm vingt cinq francs par jour ngay fay ñu indil la pour lu ci sa kër ñi bëgg ñaar mën a am ñaar ñi bëgg ñett mën a am ñett ba pare nga koy fay ci sa compte orange money monnaie électronique nga xam ni doo ko yëg ndax tous les jours lañuy ñëw rek comp tuuti ci compte bi loolu mooy li nga xam ni mooy jéego bi njëkk ci tri sélectif parce que nit ñi bu ñu amul ay poubelles yoo xam ni mën nañu segg mbalit mi du mën a baax donc ko projet bi aussi dinañu dimbali ci loolu ndax dina permettre ñu mën a am ay jumtukaay yu bees ndax déchet organique la ñuy ciblé mais pour ñu mën ko am il faut ñu mën ko ségréguer teg ko ci ay filières mu mën dem ci centre de compostage boobu. projet compostage bi euh, phase pilote bi ñuy def nii un milliard la investissement bi te ñoom ñoo koy fay. état du Sénégal du ci fay dara mais am nañu objectif ñu dem ba dix milliards pour ñu mën a ubbi yeneen juróom-ñetti centre aussi ci Sénégal ci en relation toujours nag ak collectivité territoriale yi li nga xam ni moom la ñuy def tam dañ ci ànd ak mairie Touba parce que loolu mooy solo liggéeyu yu mbalit mi